Moussa Sow maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay coordonnateur wu euh, COJER di convergence des jeunesses euh, républicaines alors euh, Moussa Sow gannaaw bi ñu amee mbégte lool dalal la ci matinal bi bëggoon nañoo xam luy sa xalaat ci dogal bi APR jël commission discipline bi dàq Moustapha Cissé Lo ci parti bi ginnaaw bi nga xamee ni yëkkati na ay kàddu yu tegginewul teg ko ci kaw président Macky Sall ak ñenn ñu mbokkal parti. jërëjëf ma it am naa mbégte lool wuyu si leen ci dalal bi ngeen ma dalal ci Euh, tout d'abord ñun dañu ànd ci décision boobule ki nga xamante ne mu dàq euh, notre camarade notre ex camarade Cissé Lo parce que ñun dañu nekk ay ndaw war a roy ci comportement yu baax euh, damay faral di wax ne comportement président bi mu yor yar bi mu yor ak teggil bi mu yor képp koo xam ne dafa ànd ak moom warul en tout cas am yenn comportement yi dafa war a roy ci moom ñun ci moom la ñuy roy donc bu ñu gisee kenn koo xamante ne moo ngi yàq image u parti bi saaga yi di taxarnaase de gauche à droite vraiment ñun dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yam maintenant nag bu parti bi jëlee ndogal dàq ko ñun dañu nekk une entité dans le parti Alliance pour la République donc ñun dañ ci ànd à cent pour cent d'accord gisoo ne amoon na beneen yoon bu ñu mënoon euh, jaar ak Moustapha Cissé Lo su dul dàq ko ndax ku xool digganteem ak président Macky Sall quand yàgg na démb la ba ñuy dàq président Macky Sall mu nekk ci wetam taxawu ko aussi euh, bokk ci combat yu bari yu ñeel waaw yoon yi bari na mais jàpp naa président la xam nga ku bëri yërmande la te dafa muñ a ba sonn parce que quand comportement yu président Moustapha Cissé ci biir partie bi vraiment. Euh, dafa jéggi dayoo loolu ku ko dégg ku ne day yaakaar ne sax montage la tellement que c'est grave comme ay xale yuy wax donc loolu c'est extrêmement dangereux pour un parti politique d'abord euh, bi nga xamante ne ñoo ko bokk parce que loolu ñëpp dañuy ñuy daw euh, pour le pays également d'autant plus que ñun ay ndaw lañ dañu war a royee ci ñi nga xamante ne tey jii ñoo nekk suñu kaw nekk suñuy njiit nekk suñuy papa suñuy nijaay maintenant nag ay saaga nag moom wax dëgg yàlla kenn kenn mënu cee roye dara biñ nekkee xale je me rappelle que boo doon boo boo juumoon ba saaga buñ la jàppee dañ lay dóor ce cela veut dire que saaga baaxul bu ñu demee ba commencé màgg nag dégg ñu mel ne Moustapha Cissé président Moustapha Cissé Lo di di saagee nii à travers la presse ñun franchement duñ ko rafetlu te bu eh, buñ ko dàqee ci parti bi ñun dañ ci ànd parce que li baaxul ça n'encourage pas la jeunesse ça n'encourage pas les les sénégalais d'une manière générale a accompagner le président de la république parce que ñun aussi du ñu nangu kenn koo xam ne day écorner l'image du parti. waaye ndax euh, demok Moustapha Cissé Lo du am lu mu yàqal parti bi surtout que ñu ngi jëm ci ay élections. non non du yàqal dara parti bi man de yaakaaruma ko wax dëgg yàlla parce que ñun nag suñu parti dafa nekk parti bu mag a mag boo xam ne depuis. biñ ko créé ak léegi ay victoire rek la ñuy enregistré donc kenn am na ku ci jóge woon lu yàggul yàqul dara ci parti bi le parti continue sa mue donc Moustapha Cissé Lo aussi buñ ko daaxee ci parti bi je ne pense pas et j'ai la ferme conviction que le parti continuera euh, à faire des victoires donc loolu noonu du ñu yàqal dara ci biir parti bi. parti boobu mi ngi jëm ci ay local ndax yaakaaroo jafe-jafe yi gën euh, tar ndax euh, am na ñoo xam ni sax tàmbali nañu déjà li ñu naan la bataille de Dakar euh, parti bi structuré wul donc yaakaaroo ngeen dem si yeneen jafe-jafe ngir moytu loolu nag aussi ci sa xalaat lan la parti bi wax def xëy na ngir situation yu mel nii bañ a amaat. xam nga parti politique boo ko créé pour jël nguur gi mooy tax nga créer parti politique c'est une association pour prendre le pouvoir un politique maintenant ñun bu ñu amee suñu parti politique boo xamante ne nit ñi fu ñu toll ñoo ngi naan APR way parti bu amul organisation la amul euh, kenn structuré wu ko alors que le parti lui-même continue continue à gagner des élections donc lu tax kon ñu ñuy structuré comme vous le vous ñun dañu am benn structuration boo xamante ne structuration boobu def ñoo doy c'est-à-dire structuration boobu boobu moo ñu neex moo tax ñuy continuer di enregistrer des victoires hmm. donc structuration bi nga xamante ne APR moom la amee hmm. structuration bu ñu neex la bu ñu doy la parce que lépp luy parti politique bu structuré di di di war a aspirer ñoo ngi koy am donc laissez-nous avec notre structuration d'accord leer na alors euh, ñu ñëw ci euh, bu weesoo kaamu Moustapha Cissé dañuy dégg yenn saay euh, beneen xiiroo ngaayo boo xam ne mu ngi ci biir APR soxal nag ay responsable yu bari jamono yële am na ñu fi jotoon a dégg yow situation boobu ci sa xalaat lan moo ko waral ak lan moo ci saafara dëgg-dëgg. waaw ñun day wax dëgg yàlla comportement yu mel noonu bu fekkente ne gis nañ ko mu wóor ñu ne ñii nii ñoo ngi yàqal président de la république parce que ñun dañu benn COJER benn structure boo xamante ne. président rek moo ñu ñor moom képp mooy suñu leader bu ñu gisee nit ñi ñenn ñi ñi leen doon jàppale di ŋàññi politique am wala di di taxawee noo xamante ne si pour yàqal président Macky Sall la ñun du ñu hésiter pour dal ci kaw kooku noonu du ñu hésiter également euh, pour euh, véritablement signaler ko pour wax ko à haute voix pour que ñëpp dégg ko te danañ jàmbaarloog moom ku mu mënti doon nag ku mu mënti doon ci biir parti bi mm. jàmbaarloog moom ba mu mot sëkk maintenant nag vraiment euh, wax dëgg yàlla man gisaguma kenn koo xamante ne dafa jël volontaire taxaw ne ne président wala li mu def euh, neexul génn na parti bi neexu ko génn na parti bi et tout man de gisaguma ko moo tax damay encourager ñi nga xamante ñoo ngi continuer di jàppale président Macky Sall pour que mu continuer développer ce pays au grand bonheur de l'ensemble des Sénégalais. Mhm. ñu waxaat ci mbiru Moustapha Cissé Lo ndax euh, yaakaaroon ni nag tey yoon euh, itam war na def liggéeyam jëm ci moom ndax Ami Collé Dieng ak euh, kii di Aline Assane Diouf ñoom ñaar ñëpp tegoon nañ leen fi loxo ndax ay wax yoo xam ne dafa jëm ci président est-ce que moom tamit waxuñu ko awale foofu am na sax ñenn ci APR ñoo xam ni loolu mooy xalaat ku mel ni Mbagnick Ndiaye. waaw lii xam nga ñeenee publiquement lañ ko defoon hmm. génne ko ci réseaux sociaux yeeg un peu partout teyel teyel lañ ko defe woon bokkul ak génn Moustapha Cissé Lo bi nga xamante ne c'était c'était un débat privé. mais Ami Collé tamit privé la woon ñu génnee ko. non c'était un débat parce que lii nii entre Moustapha Cissé Lo la ak voilà ak euh, ña ca des. Hmm. léegi nag c'était pas pareil du tout parce que boo ma boo ma jëlalee ku mel ne kii Diouf Assane Diouf loolu c'est autre chose bokkul bokkewul dara ak li nga xamante ne mooy li li ñu génneel Moustapha Cissé Lo kaawu Ami Collé ak si Lo benn la non yaakaaruma mu nekk benn hmm. yaakaaruma ko d'accord léegi euh, lu jëm ba tey ci euh, mbir moomu am na moom ay scandale yoo xam ne wax na ne am na lu mel ni terre bi ak yeneen mbir yoo xam ne nee na détourné nañ si ay milliards si ndoddu sénégalais yi est-ce que tamit tey président de la république waru woon yombalal euh, kon monsieur le procureur par exemple mu mu autosaisir wu wala mu saisir wu si mbir moomu daal di si def liggéeyam. waaw bu fekkente ne xam nga xam nga ku kuy saaga moom wala ku ku mer wala kuy. kuy wax lu ñaaw lu nekk mën na ko wax dëgg lu dul dëgg ak lépp mën na ko wax rek hmm. ñun daal one est côté de la justice. kon yow gëmoo li Cissé wax. nous sommes nous som nous sommes au côté du président de la république lépp lu mu dogal ñoo ngi ci ñoo ngi ci ginnaawam vraiment bu ñu saisir woon justice wala si justice ci boppam saisir Moustapha Cissé Lo pour ñëw ne ko li nga wax foo ko teg ana say preuve nangam ak nangam. ñun boobaa littéralement danañ xam suite suite bi ñu jël par rapport à ça. mais même bu justice autosaisirul président ndax ngir xëy na dalal xelu askan wi ne que moom transparence ci lay gérer ndax moom warul woon sax euh, euh, actionner justice pour que ñu leeral mbir moomu bu fekkente ni euh, kon ba tey mi ngi bëgg dox ci transparence boobu mu waxoon. waaw mais li ñu leen di wax kañ lenn la moom bu ko defee ñun dañ ci ànd bu baax a baax parce que nag bu fekkente ni da ngay yëkkati ay cadre di wax lu la wax fële lu ñaaw jóge foofu waxaat fële donc yooyu yëpp kenn xamul ndax dëgg la wala du dëgg hmm. bu justice woowee ñun à partir de ce moment ñun danañ xam euh, véritable ndax li muy wax dëgg la wala déet président de la république bi ngeen ciy dugal aussi hmm. boobu il n'a rien à voir avec ça hmm. n'a absolument rien à voir avec tout ça donc c'est des cas isolés c'est des cas yoo xamante ne c'est vraiment privé entre Moustapha Cissé Lo ak les autres donc loolu mën nañ ko gérer entre si les autres portent plainte à partir de ce moment ñun dinañ ci am loo xamante ne saa mhm. ndomba mhm. tànk yi ñu yor ba tax tey euh, ñu mën a détourner bu fekkee am na président Macky Sall moo leen ko jox te itam bu bu rend compte di am président mooy rendre compte sénégalais yi donc est-ce que nag euh, euh, du jaadu moom ci boppam mu daal di fexe mbir moomu leer parce que responsabilité am la tamit waaw concernant la justice ñun danañ xam fu wànnant di mujjee gëtam nañ nañ seetaan mbir mi rek et puis lépp lu ñuy ñaan aussi ñu def ci loo xamante ne si sénégalais yëpp dinañ ci kontaan bu baax ànd ci parce que président de la république am ñëpp xam nañ euh, son esprit ñëpp xam nañ ne moom bëggul lu dul euh, lu clair bëggul lu dul justice ñëpp xam nañ ko depuis le début ba nëgëni acte yu muy posé yëpp ay acte pour euh, xeex injustice la à tous les niveaux donc euh, président de la république dina peut-être jël ay ndogal yoo xamante ne ça ça va ça ira dans le sens Euh, d'apaiser la situation mais sa ira dans le sens également de euh, de de de leeral lépp loo xamante ne si am na lënt lënt ci li ngeen may wax ni par rapport au problème de Cissé et consorts ok ñu ñëw ci COJER nag foofu itam yëngu woon na lool jamono yële tey naka ngeen def waaw covid bi day eh, wax dëgg yàlla ci xeexum ci xeexam lañ nekk depuis le début hmm. biñ ko daal bi ñu amee premier cas bi depuis le deux mars hmm. Euh, président de la république toogul benn yoon ñëpp xam nañ ko mais ñun itam ñun ñi nga xamante ne ñooy jàppale président de la république waruñu mën a toog lépp lu ñu def ci biir Covid bi mooy eh, joxe ay produits antiseptiques joxe ay masques pour que inciter population yi ñi nga xamante ne. Eh, ñoo ñoo ñoo ñoo nekk ci fi nga xamante ne am na Covid am na feebar bi ñu mën a takk seen i masque. waaw bala ñuy ñëw ci Covid bi euh, COJER laa bëgg a xam tey ndax coow yi ngeen amoon seen biir jeex na foofu itam laa wax avant APR tey di yëngu nii COJER moo njëkkoon a yëngoog ay coow tey ndax coow yooyu jeex na wala ba tey mi ngi am. waaw defe naa coow yooyu avant que ñu may nommé coordonnateur COJER la. Hmm. biñ ma nommé coordonnateur COJER fekk naa fi nag COJER boo xamante ne véritablement c'était une COJER divisée à tous les niveaux. Hmm. parce que amoon nañ fi COJER yu bare bare bare jot naa ko rappeler ci émission yu bëri. mais suñu rôle moo nekkoon d'abord dajale ngaan la yooyu nga xamante ne ñoo génne woon ci COJER pour que ñu am benn unité am benn entente bi pour ñu mën a avancer gën a taqee ci liggéey bi mm. ca lañ nekkoon depuis lors de defe naa ne déggoo leen benn coow ci biir COJER allant dans le sens de la division wala li nga xamante ne mooy eh, mooy li nga wax euh, wax ju bëri jeeg ci biir COJER wàññeeku na bu baax a baax mbirum jeune nag dafa nekk loo xamante ne si euh, lu lu doy waar la wax moom mënoo ko cee bañ a am donc lépp lu ñuy wax rek mooy limité li nga xamante ne mooy wax ji te gën a jàppale ki nga xamante ne mooy le président Macky Sall ca lañ nekk depuis boobu ba léegi. ñu jeexal ak Covid bi gestion pandémie bi ci Sénégal ñeenti weer ginnaaw premier cas bi noo ko jàngatee. waaw gestion bi de defe naa ne gestion bu baax la euh, bi ñu commencé ak léegi un peu plus de sept mille cas confirmés la ñu am au Sénégal boo demee ayeur y tellement de cas. donc dañuy naan wax dëgg yàlla gàcce ngalaama au au premier des sénégalais le not général le président Macky Sall mais également le personnel médical ak ñi nga xamante ne ñoo ngi tourner autour de cette lutte contre la Covid 19. di di féliciter di remercier bu baax la jeunesse parce que mobiliser wu nañ booboog léegi la jeunesse s'est tenue debout pour xeex mbas mi parce que nag defuñu dara lu dul euh, topp directive yi nga xamante ne euh, le président de la république wax na ko gouvernement bi ak ministère de la santé dicté na ko wax na ko population yi ca lañ ne eh, ñun à notre niveau jóg nañ jàppale ñi nga xamante ne ñooy xeex mbax mi mbas mi au niveau au niveau di di sommet. Hmm. alors euh, ñu des ba tey ci mbas mi ak euh, plan de relance économique bi nga xam ne président teg na ko yaakaar nga mu mun a suqali euh, koom-koomu réew mi ci ci pandaw li. waaw jërëjëf booy xool. Euh, booy xool plan de relance économique et sociale bu dul woon moom aujourd'hui on aura un taux euh, de de progression ou un taux de croissance négatif tey jii am nañ au moins benn taux de croissance bu positif un point un dañu jógee six virgule un peu moins de sept pour cent wàcc ba un point un donc loolu sant yàlla parce que boo demee ci réew yu mel ne Italie yu mel ne ay France réew yooyu aujourd'hui seen taux de croissance dafa négatif dafa négatif donc dañuy bu ñu bu ñu di eh, di xeeb suñu suñu doole bu ñu di xeeb ak encore une fois eh, effort yi nga xamante ne def nañ ko ci mbas mi quand vous partez ailleurs vous trouverez là-bas des situations catastrophiques suñu économie jàpp naa ni ñun ñëpp comme que les les dernières les dernières euh, mesures prises par le président Macky Euh, mooy ne que da bokk li nga xamante ne mooy ñu génn euh, dem liggéey continuer suñu activité économique mais nañu respecté waale geste barrière yi hmm. buñ ko respecté continuer di liggéey danañ relever suñu économie parce que leenee c'est un désastre mooy am sept mille cas c'est un désastre hmm. c'est vrai que c'est un désastre mais le pire mooy ne que jógee ci taux de croissance de sept pour cent wàcc ba un pour cent hmm. donc loolu moo gën a pire sinon bu ñu bu ñu deful li nga xamante ne moom la président de la république digle ci dernier mesures yi yàlla xam na ne après lii danañ retrouver wu avec une situation euh, post covid boo xamante ne ñun duñ ko mën a attan parce que économie quand même moo téem réew bu wàccee ba ci suufa suuf mais ce sera beaucoup plus catastrophique que mhm. Covid bu dugg cim réew. jërëjëf Moussa Sow amoon nañu mbégte dalal la ci plateau matinal bi fàttali ni yow yaay coordonnateur national bu ko gère. merci beaucoup.